Omar Taban Fulal. waaw man sama xar moo nekk. waaw fii xar yi mbaa seerul rek. wallaahi la seer na ñun gaa mënuñ fexe bi boo jënd xar ñun xam nga dañuy jënd xar di jaayaat. Mhm. waaw xar xar yi dafa seer lool bariwul sax. Mhm. waaw bariwul. bariwul wallaahi bariwul. quatre-vingt-quinze cent lii daal. wallaahi yan jafe am euh, benn problème amul benn problème. ndox mi macha allah macha allah. wallaahi ndox moom amul benn problème wallaahi. jur bi nag euh, lu ngeen koy jox ak. ripaas rek ak ak ngooñ ngooñ saako 4000 ripaas 11000 mboq 9500 wallaahi. benn problème macha allah tubaarkalla wallaahi amul benn problème. loolu de moom su gut am su gut am de moom waaye loolu moom il faut mu am daral moom il faut mu loolu ku ne day ñëw xam nga loolu moom il faut mu am wallaahi. waaw ngi allah ñu ngi yor suñu matuwaay wallaahi amuñ benn maa ngi tudd Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba da jaay fii ci daral seen xaalis. waaw maa ngi fiy jaay si daral depuis kañ nga commencé di jaay fii. fii depuis 2005 léegi maa ngi fi ñëw. te jii nag ñu ngi fii ci daral bi gis nañu xar yi bëriwuñu lan moo ko waral. ah xam naa ne affaire changement bi affaire wiris bi ak euh, changement daaw bi loolu moo tax. moo tax ba xar yi waaw. yéen nag fii euh, fi dañ fi bi ñu ñëw fi ba bi ñu ñëw fi ba léegi léegi mu mat euh, jours ñu ngi fi. ñaa ngi jógee boori Jolof lañ jóge waaw Daara Jolof. Daara Jolof ngeen jógee. ba fii eh, lan ngeen di jaay xar yi eh, prix yi moo ci gën a ak ban yàlla ren moom xar yi bu gën a néew bi mooy quatre-vingts ba jëm ci cent cinquante waaw. xar moom ren amul seer na ak dégg yàlla. ndax yaakaar ngeen ne xar dina gën a amaat man dema yaakaar ne xar day manqué de incha allah waaw presque du ni la waroon di heure bi da fekkoon xar day bari fii waaye léegi gis nga fii fii yëpp amul xar. yan jafe-jafe ngeen fi am. Ah, jafe-jafe ci tuuti sécurité bi ak ah, affaire courant bi de mooy ah, jafe-jafe bi mm. waaw. waaw fi ñu ne nii courant bi siwagul ñëw dañuy nekk ci lëndëm te sécurité bi tamit day manqué fi waaw. léegi wax euh, euh, kii ah, bi rek dañ koy sant tamit ñu gërëm ko na dem liñ ci ñun ci ndox mi ak courant bi ak sécurité bi ñu jàppale ci loolu dañu naan dañuy jënd fi mètre cube six cent la ñuy jënd mètre cube waaw pour ñu dangay rang ñaari heure ñetti heure nga soog am ndox chaque jour chaque jour man Cheikh Tidiane Diop laa tudd euh, Cheikh Tidiane Diop tey dañu fekk fii ci dalalu sew xaay bi pour jënd xar mm-hmm. mu mel ni euh, njëg yi daal moom yaa ngi wër rek waaw man de boobu léegi maa ngi wër ànd ak sama benn copain mais li ñu fi fekk moom vraiment man lii yàgg naa fi ñëw pendant des chaque année fii la ñuy jëndee xar mais daal situation ma fekk moom c'est une situation catastrophique parce que daral bi premièrement daan na gën a fees nii ak ay xar ci ci moment bi bu naan tabaski des na un mois sax daan na am ay xar asama ak de tabaski des quelque jours waaw xar yi daal vraiment xam naa ne manqué na fii boole ceeg cher na. xam bu doon jar soixante dix mille à ay cent cinquante mille lay wax franchement parler waaw loolu daal xam naa ne daal def nañ fi def nañ fi seetlu boobu daal. parce que depuis deux heures daal ñu ngi ñi ngi fi daal di wër mag sans copain yor as tuut mais daal vraiment daal mënu mënu mënaguñu am xar. franchement parler bay. yaakaaroon euh, si si waaw normalement parce que fii li fi daan nekk ci naar da bari woon na chaque année naar yi dañ daan ñëw. carrément mais pratiquement liñ fi gis ci nit bëriwul waaw loolu moom def nañ constat boobu vraiment y' a pas beaucoup de y' a pas beaucoup influence quoi franchement parler influence bi daan am fii vraiment gisuñu ko daal ren. mais si si si non non mais nangu nañu génne xaalis mais tamit xanaa nag du ñu yor li ñu yor lépp xëpp ko fii na toog na du xoole on doit vivre chaque euh, quotidiennement nous franchement parler nous sommes des. nous sommes des pères de famille te yaakaar naa ne chaque jour dañoo war di dund mais mënuñ jël suñu économie yëpp tamit def ko ci xar de pare toog toog aussi di ko xool mënul ne. nee nañu xar non non non loolu noonu ay wax la rek mais ñu nekk fii sur le terrain pratiquement point de vente yëpp fii yëpp ñu fi yor xar yëpp wër nañ ko mais les pratiquement c'est le même waaw franchement parler. les entre euh, cent vingt mille. jëm kaw waaw même pour waaw waaw waaw franchement parler waaw situation bii moom vraiment il faut état bi xoolaat ko waaw mais le l'état les comme sa mais euh, moom du baax quoi franchement parler franchement franchement non métti na métti na métti na métti na métti na c'est une situation déplorable situation métti la bu difficile sax lañuy la ñuy wax waaw situation bu difficile la vraiment métti na trop waaw ñun ñi ñun euh, ñun sama genre gi au moins am nañu yàlla wërsëg nañu salaire mhm. mais y en a mhm. dañuy foraatu waaw dañuy foraatu pour dajale xaalis ainsi de suite waaw moo tax daal comme que sama côté la métti asama asama ak ñeneen ñi waaw métti na moom franchement parler métti na trop trop waaw xar yi cher na lool lool lool lool man boobu depuis deux heures ba léegi ñu ngi wër il est pratiquement 17 heures waaw boobu léegi daal ñu ngi wër mais mënuñu fexe daal ba mu xar. franchement parler waaw waaw loolu daal lañ ci doon et puis di leen remercier yéen waa Caisse Info on a vu le travail que vous avez franchement parler on vous remercie et bonne continuation